woote yow leer na la yow ah boo toogee si yàlla rek toog yaa gën a bari wax yaa gën a mun a wax yaa mun a gën a mun a xam ne lii luñ wax nga nga indi sa teg teg sa bos Ahmed mais nag lu ëpp tuuru buñ waxee ñu naan ma non ci kii bi la bokk eh, ci ci xaw ma lan eh, lan des cadres la bokk mais qu'est-ce qu'on a foutu ku bokk ci kii des cadres bu doon loolu la rek ñoom rek ñoy falu kon ñun jarul won ñuy politique ñun jarul won ñuy xex pourtant ñun Ahmed kay ma wax la lu dara lu dul tuuti Ahmed amna ñi ne ci prison bi muy les euh, euh ki yoyu euh, li Macky Sall tuddee farce euh, je sais pas quoi ñu ci prison bi mon frère depuis des mois te ñooñu xam nga lan mo taxone ñu ni ñu moo tax ñu nek ci prison bi Ahmed Aïdara pour yo nga falu maire pour yo nga falu député te pourtant nek ci groupe des cadres mais ñu ngi don xeex pour yo mon frère mon frère nit jógee na continent ba continent di xeex te nek ci groupe mouvement bobu des cadres mais pour yo nga don député don maire mon frère nit def na ci xelam def na ci ses forces def na ci alalam lépp pour yo nga don député et pourtant nekku ci donc mon frère tu exagères xamoo sa pour Ahmed Aidara man aji ndaw li sama man la man la concerne. man Man ne yow Ahmed Aidara xamoo sa bopp bu ngeen tu ne nak bu neex ak mbel-mbel yi tax nga dem def tu te trompes mon frère xoolal nak? aji de na mais nak dafa dafa am Il yem a day yem yem ci euh, lekum xale ndax li nga def la ku la wax man de man pour man aji ndaw la rek moy comporté wo nit ay gor nek sa le dila jappalé dila jappalé ba nga yegg fenn fi nga xol intérêt personnel parce que il le peuple bi nga demal fofu c'est pas vrai c'est pas vrai parce que ba nga ba nga sa candidat sa candidature le peuple bi ñoo la wax ne la Ahmed kiyal posé ko peuple bi daf leen la demal nga défendre ba kon nga nekk ci ci chaise ba doon euh, euh, président assemblée ak nga toog ci ci ci ci people bi foofu c'est pareil au moins booy xeex xeex la du ne terrain bi lay gën a xeexee wala terrain bee lay gën a xeexee xeexal sa peuple xeexal sa peuple la y a pas de poste y a pas ne dama nekk ci mouvement des cadres moo tax c'est quoi mouvement des cadres ana Sonko bi def le tour du Sénégal moom dafa nekk ci mouvement des cadres mu ngi ci mais bañ ko falutee fële la toog te terewul mu jóg di la yow di la battre la campagne pour nga doon député yow nit ñaa ngi lay gën a gore nit lay gën ci mouvement des cadres donc c'est pas une excuse ne moom la déedéet du ñu ko fal ci mouvement des cadres

pour déglu lu xew pa bi di la wad li lii wad li lii wad li lii ñun Ahmed dégluwuñ sa revue de presse pour ñu wax nga Ablaye wad ñun dañoy dégg sa revue de presse pour xam li xew Sénégal té yow bo xolé 80% yi diaspora bi ñoo lay déglu amé parce que da Sénégal ñi am connexion da nga la ñuy kontaan da nga la ñuy compter nga top ñu nan ñu. Ablaye Wade li ci imam bobu lo wax Ablaye Wade ba ñu gisee léegi li bobu yaa ñu ñuy forcer imam bi bu ñu forcer Ablaye Wade bi. Ahmed ñun ñu on a compris ton jeu Ablaye Wade bi ñu bugg forcer du fofu Ahmed parce que qu'est-ce qui était beaucoup plus raisonnable da ngay teg imam rek tegal imam bo xam mëna tok di wax ci yàlla bu dee imam rek ngay def bu dee da ngay teg lo xam ko koo day wax. ci ci Ablaye Wade nga teg ko mais nga wax nañ kii kuy wax ci Ablaye Wade la kuy wax ci Macky kuy wax ci ci ci ci ci ci ci Pastef ci Yewwi Askan bi mais ci l'as pas fait amet <laughs> lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru fii y a pas ku nekk mouvement des cadres ndax yow tey leer na la ne yow munoo woon toog ci chaise boobu mais dañ naan dama duma ci lekk dinaa ci xëpp suuf kooku man lu ma xalaat la am te kenn ko dindi sama euh, sama kii bi sama bopp bi yo da nga ne duma ci lekk na ci xep souf parce que lan la yo nak nañ xol ne ci soufa soufa souf yo tu es PDS am Ahmed t'es un libéral bu dee nag yow da nga foog ne ñun ay dof nga andal ba bëgg ñu dribbler tu as mal compris Ahmed ñu suñu bopp téguñ ko si suñu doq gii rek teg ko non di di di dox dañ ko fi teg pour réfléchir pour analyser et depuis quelque temps am Ahmed yaa ngi def ay faux pas xam yoo xam ne man dal sama xel taalibe Sonko du 2 tv 2A TV la man désabonné désabonné naa depuis ba paa boobu noonu euh, nekkoy foofu Ablaye Wade bu dul amul ab imaamam boobu ma xam ne ñii il commence à nous casser les te yóbbu loolu buñu ko defone c'était juste pour jàppale la xéer té amé bo doon gor kéro ba gu bugan défé lam la def nga teg ko à moins de quelques heures patriote yëpp dem sa sa sa chaîne bi Ahmed yaa ñàkk ya ñak ngor patriote yëpp dem sa chaîne bi di le publier di le publier Ahmed xoolal sa digënté ak yalla la Ablaye défal défal defal defal defal defal askanu Sénégal lim la defal Ablaye Wade defalagu le Wade la maire Ablaye Wade le député Ablaye Wade eh, bougan euh, la nga dem euh, Ahmed Aïdara donol gor donol gor donol gor ndax tay Mamadou Lamine nga man sax je pouvais comprendre mais ce rien de Lamine yéen bu ngeen bu jëloon booloo pousse Barthélémy lu ñuy gagné la lu ngeen ñuy gagné la ñun Barthélémy il est pas de passif moom taxawu la mais nag dañoo xam ne lii bu dee intérêt population bi la passif da ciy dem passif da ciy dem mais yéen vous êtes tous là-bas Yo Ahmed Aïdara yo Mame Diarra Fam mii mbel-mbel ñu naan ma Mame Diarra Fam Mame Diarra il est là pour ses propres intérêts maam jaara faam mu ngi xool ku nit ñi di déglu mu mu nekk yow boo ne ma ci man ah, ñu ne maam jaara faam c'est un député de la diaspora maam jaara faam ban yoon laa ko dégg mu wax problème mu diaspora dara man dégguma ko donc ban député diaspora la ban diaspora peut-être dafa am diaspora bu nekk biir Sénégal moo tax yow monsieur Sall yow mi ñu def euh, député Pastef bi euh, monsieur Sall bu diaspora xoolal on sait que tu es un intellectuel taxawal fa diaspora bi taxawal fa diaspora bi te yalla tax mais genre yi ni ay ñom Ahmed Aïdara dara. dee yow ay ñom pap Jibril Fall Bo buggee yow Ahmed ñu teg la ci classe pap Jibril Fall Xolal lañu jox lañ la jox dañuy rocc yow pap Jibril Fall ku ko waxon barki demb ak barkati demb. Né ko li boko défé li mo la ci top. j'en suis sûr et certain du ko def j'en suis sûr et certain du ko def mais nag c'est trop tard jaam moom yàlla dalay weer nga xool ko démb mu toog ci foofu mel ni te pourtant tu es député nga mel ni kuñ sotti ndox bu sedd kenn xamul lu muy nuru nga ñëw nag ne ko waaw place jaam baa ngi nii nëgal ma toog seen wet ma toog sa wet mais na xoolal mbarki yàlla ay dara fi nga fi nga laal du foofu moom frère da bëri nga wax mun nga wax neex nga làmmiñ mais loolu ci télé bi la affaire de journaliste la loolu affaire de publicité la fii c'est askan bi li métti askan bi li askan bi di xeex Ahmed yow man aji ndaw bu ma jëlee vol de de Suisse jëm Sénégal du yàlla ak sa jëmm ji mais bu ma la votelee du yàlla ak sa jëmm ji Ahmed bu ma la campagnelee du yàlla ak sa jëmm ji donc rappelle-toi de ça te ni ma ci mel noonu la ci des million de patriotes nekk ndax Ahmed yow boo rombee géejawaay boobu yow Ahmed fan nga toj ba taxaw naan dañuy laaj suñu assemblée bi loolu mooy da nga bon ndax lu tuuti tuuti tey benn kon peut-être mun na nekk ci biir nee naa votel Ahmed te bu boobaa dina yàqal yeewi Mamadou Amadou Lamine mais wàllu sax bu leen neexee ñu def lu leen neex. on peut comprendre mais yo, tu ne peux pas dire que je suis de Yévi askan bi ba pare dem di poser wu candidat Et yow yeewi askan bi ça a été flagrant ndax bi ñuy wax a biir assemblée yeewi askan bi dañ askan bi seen candidat mooy Barthélémy donc ça veut dire que yeewi askan bi ñoo teg Barthélémy on n'a pas mis Ahmed Aïdara kon ne peut pas nit ñi. C'est une décision personnelle du moment que nous mu cette décision personnelle nous man cette décision personnelle Moi, on doit foutre Ahmed Aydra d'or jusqu'à preuve contraire <laughs> donc mu ngi ah Binta Sané nuyu naa la la grande patriote nuyu gëj naa laa dégg gëj naa laa gis ma sœur j'espère que yaa ngi ci jàmm moom tax rek la doon ko wax ci Ahmed Aïdara euh, Ahmed delluwaatal sa place nga dem régler sa géejawaay bëri déjà yaa ngi liggéey nga ne fayuñ la géejawaay soxla nañ lañu soxla jéem cee taxaw jéem régler lolu bala ngay nan da ngay régler tout une peuple tu es pas à la hauteur Ahmed

on a parce que dénkuñu dara donc la ressaisis-toi xoolalaat sa la nga un ci de bi te li nga def du yëfu gor taxaw nga demander pardon au peuple bi nga ne ño ño euh, fexé ba nga yow nga gor nga gor gi yow peuple pardon parce que Ahmed man de tu m'as blessé et tu m'as déçu man Adji Ndao Ahmed ay tu m'as blessé et tu m'as xam naa ne nag jotoon naa xam tuuti ci yoon bi nga nekkoon ma nga tegee pas boobu sa plateau bi eh, imam de Ablaye Wade bi mais fooguma woon na nag yow tu étais si méchant à ce point xalaatuma ko woon dernière chose mooy Mimi Touré Mimi Mimi kër Madiou Touré waxoon laay waloon naa la fi nee naa la kër Madiou Touré jaam juddoowu fa Mimi Mimi Touré kër Madiw Touré ca Kaolack jaam juddoowu fa ay góor pur et dur ñoo fa juddoo ay bañkat pur te xoolal bu ngeen duggee kër maamu macha allah kër maamu Mimi Touré kër baayu Mimi Touré ca Kaolack bu ngeen fa duggee car macha allah cent personnes bu ñu fa yeewoo mun nañ fa yeewoo nañ fa mais ñëpp ay patriotes lañ Mimi. munoo jóg ci génnee ci benn famille bu nga fa nekk benn affaire bu ñuul mami ñi mi ñëpp ñu ay gor à part politique bi sax ndax man sama sama grand frère bu ma bokkal ndey ak baay kër ñoom Mimi Touré la takk jabar ça fait plus de trente ans macha allah ñu ngi sëy ñu am nañ fa juróom ñaata juróom benni bant ñi sama grand frère bi am na ay sët kon kay yàgg na yàgg nañ mbir ko ñoom ma Mimi Touré ndax Assane Ndao am na jabar ba am doom ay doom macha allah donc que ñoom Mimi Touré dama ko xam ndax dama fa doon foye ci biir Mimi foofu jaam juddoowu fa kooku foofu ku ñuy nax juddoowu fa Mimi Touré kooku ku ñuy foye juddoowu fa Mimi Touré yeewul doomu Saalum comme yow sa mbokk comme yow moo la koy wax ñàkk nga fay fayda Mimi Touré Macky Sall jël la def la comme genre euh, kawas su ma la soxlaa fóot la ba nga set jël la sol la bu ma paree sànni Mimi Touré sa baay ju deful loolu jurut loolu Mimi gëmal sa bopp gëm sa bopp Mimi jàng nga dëgg la li loo am ginnaaw yàlla politique moo la ko may waaw moom moom samay waxu démb mi mi ba ngay jógee euh, États-Unis taxul woon muy wax dégg nga loo am yàlla ak politique mais dellool politique boobu loolu dellool jaamu yàlla yi loolu jóg nga xeexal bàyyi sa sa sa kii personnel bi l'égoïsme que tu as dedans bàyyi ko nga taxawal askan bi Mimi néew ma ne di nga jël réew mi de mais di nga am baat ci réew mi ci kaw nga gën sa bopp mais topp Macky Sall bi nga xam ne yow Macky Sall Mimi Touré Macky Sall da ngay xool Mimi ñun ñëpp Kaolack lañ dëkk ñun ñëpp Saalum lañ dëkk Mimi Euh, kay luye musique ba fële na leen ndar gu ndaw mbokk Macky Sall yi ñoo ñoo dend nii kër maire boobu noonu ku defalul ñooñu Macky même Mimi dina la defal Mimi demal kër bàyyi Marème Faye Sall ca Kaolack ki nga xam ne ca geñoom la Marème Faye Sall génn sërëm mu ngi noonu ci mairie Kaolack lay liggéeyee bu amee soixante-dix mille par mois ca la yem ah beneen frère bi mu ngi noonu topp moon jaay raxma mel ni kii post société am ñooñu ak Marème Faye ñoo bokk benn baay man nag mbokk dimbale laa ci xam nga ñu bokk baay bokk ndey mam laa yemale bu ñu bokkee bokk nañ deret ba benn la bay circuler ci man mooy circuler ci yow mais ñooñu Mimi ca problème bañ defoon ndeyam ja ba ndeyam ñibbi Saint-Louis euh, safurlaa moom Marème Faye problème bañ defoon ndeyam ba ndeyam ñibbi Saint-Louis ba léegi Marème fay tellement ko corse la moo tax dimbalewut doomu baayam yi ba léegi muy jëfu doomu baay yooyu lay def ba ñooñu demal nga xool ko mimi mimi kooku ñooñu noonu ko nit kuy dund ci ñooñu ci ku ci weti Marème Faye yow foog nga ne ku munta wax Marème fay demal nga jàppale say mbokk lu dul Marème Faye mu soo dégg ñu ne la ay doomu ndeyam ak baayam rek ñeneen ña bokk ñu ñu nga nële ah donc mimi loo yaakaar ci ci ci ci ci ci Macky Sall mu defal la ko ñaata yon mou humilier le devant tout le monde mais ce orgueil yu je suis une femme je crois à ma à ma personne Mimi ana moom fan la nek. fan la nek, Mimi Touré mais réveille-toi demal demal nga nga fait, même bu dee ñaari nit mo lay top wala ñetti nit da nga né ñi top nañ ma ndax gëm nañ ma mais yow taxaw nga xass na fi Ousmane Sonko tay tay tay war ngaa sa guruus ndax kan Macky Sall mi tax nga xam xas Ousmane Sonko wax lu nekk Ousmane Sonko anamu tay dig ci kanamu aduna bi yeb mu leer ne ko c'est tout Sénégal est connecté tout le monde fu sénégalais nekk dans dans le monde mu ngi connecté euh, en face mu wor la ci dig peuple bi mimi yo bo ma doon yow eh, fu Macky Sall di nokkee eeru nokkeem sax duma ko nokki man kon ma mimi nga xamne ne man salum salum la waye ma muna xex ma am fulla ma am fayda man toog desoog yàlla ndax bés bi mu la ko def dafa gën a ñaaw mimi Macky Sall troisième mandat yam lay wër wëru la yow doxal sa dox doxal sa dox Zeyna sista nuyu naa la nuyu naa la loolu rek laa doon bëgg a wax Ahmed Aïdara ses histoires di leen euh, ñaanal nag waaw kii ay dara kii Momo Ahmed Aïdara jëm nañoo forcé gàkku loo wax mu ne la euh, gàkku gàkku gàkku ko amul àpp xam na ne kenn dégluwu ko ay dara ubbi na kii yëpp boobu commencé xam nga Sonko Sonko pour loolu mu ngi attirer nit ñi xam nga ñoom son seen problème mooy dañuy dugg ci Ousmane Sonko pour am nit ñi bu bu ñu amee nit ñi nag bu ko wanee seen bopp mais xamuñ ne kooku bu la toppee yàlla jëmm jëlee. mu ngi warate kat yo warate kat ba ngay dem tok mu di la war boo ñewé mu di la war yalla ak ak yalla ge yëm ak yonentu yalla Muhammad bi nga bëgg a mom ngay xéñtu bëgg ci xam dara ñoñu ño tax nga dem warate kat bobu bës bu joggé ci dootu la war ci yonent bi dootu la war ci yalla yow keroog la lay gëj gis ndax du yow du personne mo tax nga dem fa te Ahmed Aïdara il a pas compris que ñun dañ ko porté won grâce à Ousmane Sonko grâce à Parce li mu ne woon na pour askan bi lolo taxawone mais nak mom comme Pape jibril rek il a voulu faire ce jeu pas imam ba toog fofu imam bi chaque jour bañu démé fi ak Ablaye wad bañu défé fi ak Ablaye wad ñun on s'en fout de Ablaye wad man de Adji je m'en fous de Ablaye wad de Karim wad de tout ce qui Macky Sall de tout ça m'intéresse pas Ben affaire moo ma intéressé moy le président Ousmane Sonko Pastef ni ñuy jëlé réew mi kookoo ma intéressé mais man Ablaye Wade joggé lo fi ba sama buntu kër gi ci suuf mënu ko du Karim Wade mënumaa joggé fi ba sama buntu buntu buntu buntu bureau bi non non je suis désolé mais nak Ousmane Sonko mun na tax ma tej bureau tej lépp tej jabar euh teg euh, borom kër teg njaboot gi ne leen oh caaw arrivé der ci jël vol wàcc Sénégal affaire bi fofu la ñun waruñ makki waruñ makki Sall waruñ ablay wad waruñ Karim gu ñoo tax nag Pastef président Ousmane Sonko nañ gëm yalla te yalla tax ba paré nak bolé ko wolu ci wolu ko nañu dem gor bu bëgg and ak ñun te gore rek té yalla tax nga ñëw gore rek and ak ñun waaw mu jeex tak parce que fim nek ni

boo baaluwul àq man de duma la baal man aji ndaw ndax nit toog naag moom di wax di wax ay heure pour mu convaincre leen ñu dëkk géejawaay muy patriote yoo fa nekk à distance ñu lay campagnal kii Ahmed à distance ñuy dimbale patriote yooyu may dégg waa géejawaay di leen dimbale pour ñu am fay pièce d'identité Ahmed ci ci ci ci ci euh, inscription yi di dimbale patriotes yooyu noonu pour ñu inscrire seen seen carte yi génn Ahmed jour boobu ñoom ñu dem voté ak fierté te ñooñu bu ñu voté yàlla jëmm Sonko bara cuuraayu dëmm bi ngay wax ne Sonko boobu noonu Sonko wis ba nga mun cee nokki Ahmed cuuraayu dëmm boobu ñun buy nii dañ koy récupérer dem suñu yoon. Euh, kii ni xaar tuuti man xaaruma tuuti de c'est ma conviction personnelle man li ma gis c'est mes analyses personnelles ba preuve contraire mais man nit ki li ma jaay li ma jaay ci loolu lay analyser quant à limi muy après c'est son problème mais man lim ma jaay loolu rek lay jënd loolu kese lay jënd parce que nak nañ waxante deug nit bu ngeen ñi and bu ngeen and ci franchise parce que du moment que nous sommes ay candidat candidat même nous nous bu des deful nous nous on n'allait pas prendre le truc duñ ko pour lan parce que ñàkk a bokk doon ben. ñàkk Nous bokk doon ben, nous nous le premier tour mais nous nous nous nous nous nous dañuy dem nit ki nag boo xamee ne yow da ngay liggéey li ngay def dañ ci ut intérêt demal tu crée ta société nga dem sa demu bopp mais bul utiliser nit ñi pour tes propres fins te loolu dafa bëri Sénégal dafa bëri ñoo xam ne dañ man dañuy foog ne nit ñi dañuy nelaw fekk yow li ngay jël di def comme que tu es pas honnête dire à tout le monde ne lii dama koy def pour lii nit ñi di ko gis bàyyi la ci biir bu ëllëgee ñu toog wax la sa bopp

Et c'est ci Ahmed Aïdara la gënoon a jekk ni Baara Dolli Baara Dolli il est de wàllu Ahmed Aïdara il a dit qu'il est de Yewi askan donc loolu ci ñu ngi ko doon xaar ci Ahmed pas de Baara pas de Baara mais Ahmed il a précisé, dem ne dafay de jóor ko duut ko baaraam bañ koy daan Ahmed de Manset mu leer ko fauteuil bële moom gatam bi mënu cee tegu mais il s'en foutaient de nous, on était sur le terrain des mois et des mois du coup, du coup, du coup, pour moi, mu yegg assemblée mais on l'avait dit de s'arrêter là-bas mais lui il a voulu aller plus loin c'est ça le problème il a voulu aller plus loin alors que c'était pas son devoir bu nous dit ñu naan ci biir la euh, le mouvement des cadres même nous, ñi ñun bokk ci mouvement des cadres te ñu ngi koy ñu koy xeexal léegi donc ku bokk ci mouvement des cadres da ngaa war a falu wala c'est forcé pour nga falu mais ñaata nit ñoo nekk ci mouvement de cadres te te ñoom posé wuñu sax candidat waxuñu ma ñuy jéem a falu ñun ñi nga xam ne ñun ñu ngi nii di mbel mbel yi ñun ñi nga xam ñu ci àdduna bi fu nekk ci biir Sénégal googu noonu nekkal ko ci les seize personnes ñi nekk biir biir prison. ñom Assane Dramé ñom Ousmane Seck ñom djéju ñom Assane Ousmane euh, kii euh, l'autre là ndax ñom ñooñu ñep ils sont six personnes euh, école ñooñu ñun man aji ndaw maa créé woon groupe bobu noonu man maa créé woon groupe on était 23 ci biir groupe bi les vrais patriotes ñoo xamné xolal xoolal day métti ñu nek ak yow ñooñu duñ la won ginnaaw dé des vrais patriotes ñooñu nekul né xolal parce que tu es visible non non ñooñu and ci loolu ñooñu c'était une connexion de cœur. N'importe quelle heure, Oye, ils sont là, devant. Faut que le président Ousmane Sonko, dise que c'est un côté. Nous sommes Ousmane Sonko. Nous faut, faut passer sur là, ils sont parmi les premiers. Nous sommes en prison. Le groupe Bobo, man m'a créé, qui, euh, Ndiaye, moo joxe euh, tur bi Black Black Panther bi ba may ree ma naan leen Black Panther lan dem xool film bi ne leen ok l'essentiel la ñoo bëggoon ko tuddee tur rek la da euh, kii Assane ñu def ne ne euh, Mor ak ñoom Mor Gueye moom commandant kooku jabar ak doom la am bañ ko tëjee ba léegi perte na fi ne liggéeyam ñoom Ousmane Diagne ñoom Kara ñooñu ñooñu ñëpp.

kéro bi lañuy japp feulé jàpp fële euh, comment dirais-je euh, plage Bessayaaw ñom papi ñom ñep ñi ñu fekk leen seen biir kër ñom ñep ñep ñep ñep ba ci asan jour bi man di waxé mom ci boppam Assane Dramé ci bopam mo o mëna ta aji japp nañ euh ki papi papi amna na neneen ñu ngay koy oyé amna na neneen ñu ko nit ñi di oyé xaw ban tour ngeen koy oyé non mo demoon wal fa di wax jàpp ma ne ko lan mooy jàpp nañ leen mu ne ma jàpp nañ leen dégg naa dañ leen fekk ci plage bi te xoolal ñoom bi ñuy dem ak kaar bi Assane Dramé mu a ma xoolal bi ñuy dem a kaar bi ñu ngi ma romb parce que xamuñ xamuñ ñu ngi ko romb ndeke moom la lendemain lañ koy fekk ji biir këram le lendemain lañ koy fekk ji biir këram ñoo ñëpp ñu jàpp leen pour lan parce que dañ ne woon non ñun ay dara day doon maire ñun ay dara day doon député ñee di ree kese ñii posté kese ñii di di def li nga xam ne yow moom ngay def chaque matin la nga daan def chaque matin ñoom ñu koy def ñu jël leen dugg te ay Aïdara xam nga lan mooy prison ndax dem nga ci te ñoom yow dem nga ci ñu fexe taxawaat génnee la te ñoom ñu nga fa depuis des mois Ahmed ñoo ñun bu ñu ci taxawul ñu lekk naan am

xoolal fañ ko tegoon te fa ngay xamee ne ñii ñooy gor hmm. ah xam nga dama yàgg wax ne man gëmuma patriote yi nekk ci kii mooy lii coordinate no man patriote sur le terrain laa gëm parce que man aji na ma ne loo amul sur le terrain munoo ko am ci biir bureau bi ñoom laa gëm man les jeunes sur le terrain ñooñu laa gëm les vieux sur le terrain jigéen ñi les linguères man ñooñu laa gëm sur le terrain ñuy dugg këraw kër di ko lijjanti man ñooñu laa gëm ñooñu tey Ahmed Aïdara barki dem boo njaay dañ leen a dóor ba Assane fii yëpp di métti ñu woo ma ne ma euh, di leen forcer pour ne nañ signer benn papier pour buñ dugal euh, prési di len forcer pour nous signer pour le président Nous ne len xolal seen bakkan bi ngeen jël ko mo yomb mais ñun le président Ousmane Sonko après 2024 on dira on signera pas on dira rien de ce le président Ousmane parce que du dëgg ñooñu amet ñoo la fal te lool barki dem bo la motax mané ma Macky Sall dafa man aji ndaw ma créé groupe te ñaata yon la dem aller retour Sénégal

Macky Sall dafa waroon jël benn koo xam ne gëmul dara mais groupe ba nga dem récupérer ñooñu noonu ñooñu dañu gëm le projet du Ousmane de ñoom projet bi dañu gëm ñooñu dañuy vivre pour projet bi moo tax ma ne la fa nga laal nooyul anam ñoom papi bi nga leen bàyyee barki di ña nga ña nga jot a bàyyi noonu ci ci sa Bessayaawo ba ñu nga fa ña nga fa ki yoon jot a bàyyi ana ñu ñu ngi sur le terrain. da nga la ñuy bàyyi la lendemain man papi maa nga doon wax dama nga sangu ji géej ngeen dem toog tuuti mu ne non non dañoo war a wax dem xama pour ban manifestation moom ñooñu ñooy topp ci ginnaaw Abdou Karim boo déggee ma ne la Abdou Karim ñaar koy wër ñooñu ñëpp c'est des patriotes mooy ñooñu moo war a jox respect les patriotes di xoolal euh, imam kii boobu noonu euh, ki ñu jàppandoo rek euh, kii Abdou Karim pour quelle parce que le mouvement parce que il dit non parce que l'imam... imam hmm? te c'est Macky qui l'a tué qui l'a tué mon frère n'avait rien mon cousin n'avait rien avant de rentrer en prison Macky Sall li Yo, bañ a dégg yow dañ ne ba a que nga xam ne moo toog xalaat sàngara jël ko defar ko jox ko ki koy transporter jox ko ki ko yóbbu ñoom ñëpp ca bàkkaar bala Macky Sall yow sa loxo moo tax Oumar ndaw féetoo suuf waaye nag moo tax ma ne laa dawaat fa nga laal nooyul ndax xoolal loo bépp loo def imaam tey kooku noonu tey lañ ko gën a jàpp tey ngay toog di amaat temps di déglu lim la doon wax pour gën a comprendre boo munoon boo ba nga reyee imaam da ngay dindi vidéo yam yépp nga xam ne dootu am benn source ci imaam mais tey la imaam gën a dund c'est toi qui as tué mon frère c'est toi qui as tué mon cousin kii yow c'est toi qui as tué mon mbokk Saalum Saalum Macky Sall ak seen oto boobu ngeen joxe woon nous sommes imam Imam lii ak lii imaam dañ ko doon waaj a fe Turquie papier ya presque demone na yëpp demone na Turquie Imam problème bi moy Imam nim mu bir bir bir euh Fann tay bu doon tey instant bobu non la meloon kon day dañ koy tek ci avion rek mu dem Turquie mais imam véhicule dormait, il faut il fallait que mu am accompagner pour dem ndax kuy nelaw munoo ko jël ci avion noonu rek tek ko ci il faut mu am lu ko accompagner un médecin bu ko accompagner far yalla def li mu def mais ñun wuñ yow yeen imam ngeen faj imam daw ma fay Faye li ma la waxon rek bu ñu demee ba nga ñu ne ku fébar ma Marème fay faj la yóbbu la Europe ça veut dire que kon Sénégal ga baxul ndax bu Sénégal baxon kenn du yobbu nit Europe fofu lañ koy fajé biir Sénégal donc vous êtes des assassins ah vous êtes que des assassins lénen wuñ leen ko tuddé Macky Sall y a combien de personnes yoo raylu at cette armée cette euh, là ces ces gendarmes ces ces policiers nga xam c'est des marionnettes loo wax ñu def ko des marionnettes ana fii un policier en Europe wala ben, ben, ben, ben policier ben, ben, homme de tenue fille ce président ne la lii rek nga def ko man loolu Afrique rek laa ko où est votre dignité de de de dignité votre yéen seen honorer seen tenue bi motax man buñ ñu ma waxee ma ne leen di gendarme li di police ça va ça va man kenn moy taxaw romb sama yaram daw moy un militaire. un militaire lool mom yalla ko def depuis que j'étais toute petite militaire fuma ko gis parce que je me dis lui il est 24 sur 24 au front jox jox kenn joxuko ko dara mënaluñ ko dara dara nga tok fofu rek di défendre sama drapeau mais c'est corrompu là.

dana war a régler sa sa assemblée da ngeen ko wara tek ci yoon ba nga xamne xex du fa am ku nek li liggéeyam mu def ko maam ñam jaara fam yow fofu du question de défilé de mort dañ dafa yónni foofu la ñuy décider hôpital bu baax fofu lañuy décider école bu baax fofu lañuy décider rue yu baax fofu lañuy décider lepp lo xamne lu am importance la mais qu'est-ce que vous avez fait vous dormez quand Macky Sall se prépare son euh, son président de l'Assemblée. Euh, l'autre là qui doit signer pour lui, ce camarade M là, Mélène marionnette, Macky Sall avec ses, ses, militaires, ses, policiers et gendarmes. L'autre qui préparé. Macky Sall, d'ailleurs, def le tout Sénégal rive. Vous calculez, est-ce que vous avez une fois calculé les 25 000 il Macky Sall di joxe chaque 3 mois muy 200 et quelques francs ñu là.

soixante mètres carrés gars yi ay un million deux cent de francs suisse muy un million deux cent euros fii ay ministre yéen ngeen tëdd di nelaw seen lu ñu waxee ne yéen ci mbënd mi mbënd mi daaw la mbënd mi ren la mbënd bi du changé tant que Macky Sall mu nga fa parce que intéressé wu ko intéressé wu ko li nit ñi di dund Macky Sall li ko intéressé c'est enrichir di dictateur parce que enrichir enrichir lu la parler mais il aime commander il aime être au front nek di def lu ko c'est ça la vie de Macky Sall c'est la vie de Maren Faye Sall c'est des vauriens c'est une famille de vauriens qui pensent qu'à eux donc yéen yéeneen mun fexé genn génn ci kenn du leen ci genné bo waxé ñu né ñun ñongi ci ñongi ci wax ñun bu wacc sur le terrain jotee ñu ñoo wacc sur le terrain ñongi wax ñongi sensibiliser ñun loolu lañ mën loolu kessé lañ mën li dess nak yeen yéen ci boor a parce que lu ñi dund lu metti ji li yéen yéen koy yëg du aji ndaw koy yek qu'on se dise la vérité du aji ndaw moo koy yëg du doomu aji ndaw moo koy yëg du frère aji ndaw moo koy yëg du sœuru aji ndaw moo koy yëg yéen yéen koy dund yéenay dund mbënd ma yéenay dund mbënd bi yéenay dund euh, ceeb bu cher bi yéenay dund courant bu cher bi ndox bu cher bi mais qu'est-ce que vous voulez da ngeen bëgg yàlla yàlla wàcc yëkkati Macky Sall déedéet yàlla nag ba mu la joxee tànk ki loxo jox la une tête à penser fa la paree ci yow. fa la paree ci yow li ci des yaa ko war a yeggali booy toog naa yàlla yàlla baax na xoola nit ñi avancé te xamal ne jour bu la xas a raw dootul retourner je suis désolé mais c'est ça la vérité on est fatigué.

foofu lañ koy xoolee parce que des fois li mag ñi di def moom la xale yi di def yow jigéen ak jigéen bu ñuy xewloo di xeex lu ñuy def ñaari baal ñett mu ne ko yow caga bi te araam musu koo gis mu doon caga musu koo gis mu jaay boppam xëj na kooku sax xale la ku vierge la sax mais lu mu koy wax pour yàq deram nee na mu ngi ko naan ko caga bi bu dee góor a góor yuy xeex lu ñuy wax sàcc bi question de yàq der la rek mais ñun nag ça passe pas parce que ñun loolu la ñuy foyee ñun bu ñuy xeexandoor bi bu ñuy kaf yooyu la ñuy foyee nga wax ak nit nii bandi bi pourtant yow xam nga ne du bandi mais rek pour salir ko moo ma la kenn le président Ousmane Sonko yàlla setal na ko loolu moo am importance nous sommes ci bëtu Sénégalais pas ci ñoom ala kuli ali ñoom bu ci ñoom parce que ñoom bëgguñ gis lu set bugguñ lu baax ñoom intérêt protéger xoolal Pape Diop mu ngi noonu ses intérêts moo tax yàlla wan nañu lépp nag le reste ñu ñoo ko mën a yeggali voilà loolu rek laa doon bëgg a wax ma daw yeggali journée bi incha allah eh, di nuyu yéen ñëpp hmm. voilà ba beneen yoon Sénégal moom mooy loolu Zeyna sis d'amour nuyu naa billaay mu ngi noonu Zeyna mais nag yàllaa leen ëpp doole dina jeex de bu soobee yàlla bu buñ ko gëmee ñun te farlu ci gëm ne dina jeex rek dina jeex moo tax euh, Pastef moom nañ des ak ñun yàlla dem daf fi ñu yegg si ba fii ba fii <laughs> yàlla yàlla yàlla la du keneen donc gënoon na fee métti ñun ñuy dem suñu demu bopp gor ku ñu ci fekk si